fii ci Grand Yoff lëpp daan na yemb ngir ñu amal marche Popenguine te ñu war koo door suba Pape Germain Mendy nekk secrétaire général coordination des jeunes waaye doon chargé de l' administration marche bi di ñu ko xamal. actuellement ñu ngi toll ci mille quatre cent marcheurs wante nag bi ci gën a manifester à peu près de vingt ans à trente ans ñoom cinquante ans ñu ngi ci tamit. gën ak rataxal nit ñi ci seen biir famille doon na tamit lu ci bokk loole sabab bii lee teem ba tey sëñ bi Mendy di ko leeral. une démarche de la fois et que tamit tey ren dañoo am thème bu nekk l'amour familial vocation chemin de sainteté donc loolu di gën a dëgëral sunu ngëm ngir marche bi gën ànd ak dal ak jaamu yàlla gu teggine ab messe d'envoi dinañ ko amal ngir ku nekk xam fu mu féetee muy lu suñu àddukat bi di ci indi ay gindi messe d'envoi boobu noon moom mooy nekk messe bu ñuy dund fii au niveau paroissial ak sunu curé ak sunu aumônier bi nga xamante ne dañ gën a xuus ci thème marche pèlerinage bi dañ gën a ñaax tamit nga xamante moom moo ndaw yi nga xam ne dañuy ànd ñun ci boobu démarche de foi ci messe d'envoi boobu tamit si la ñuy daal di jox yenn articles yi. mu bokk ci mesure barrière yi doon farata ginnaaw bu ñu organiser marcheurs yi par groupe. les mesures barrières depuis démarrage inscription yi ñu ngi koy jël et tamit euh, a ñaax par rapport à ça beneen bi tamit moom moo nekk les dispositions de la marche par groupe lañ koy def groupe bu nekk day am quarante personnes ci personnes dinañ tànn ñaari responsable de groupe. mu des waxtu bi jot ñu daal di départ wutali ji bërëb bu sell gi di Popenguine